asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziare bu baax a baax CLVBTS campagne en ligne votel Bachirou toroxal système bi maa ngi adressé sama wax ji vieux mason fële ca euh, bëgg mu jot vidéo bi euh, tasaare ko ci képp koo xam ne si yor na métier bi mu yor muy mason di liggéey liggéey bi am solo di ko ñaan mu tasaare ko massivement. di ko ñaan mu képp ku mu ko envoyé mu ñaan ko mu envoyé waat ko mu envoyé waat ko comme keneen kooku envoyé waat ko keneen kooku envoyé waat ko ñu di ko partagé euh, Vieux yow ak euh, dama laa teg ci bopp jeunesse sénégalaise nga xam ni euh, yow yaa leen di jiite li ma lay wax ni nga tasaare ko ci ñoom ñëpp képp koo xam ni wax ji àggul te moom nga fexe mu àgg ca loolu sa responsabilité la na ko assumer Euh, bu leen nii ni régime Macky Sall mooy régime boo xam ni mooy régime boo xam ni ci la gisee bu leen fàtte ci la gisee lii nii eh, jël ay fetal loo xam ni ay force de l'ordre dañoo am sañ-sañ ngàbb ko di doxantu ci mbedd mi ñoom ñu yor ko ànd ak ñu yor ko. ay nit ñu bëree bëri yor ko dugg ci seen i 4 x di jaar ci nit ñi ci di tase manifestants yi ci mbedd mi di leen tiir ay balles réelles ñuy faatu loolu fan la am ci nguurug Macky Sall nguurug Macky Sall gii mooy nguur goo xam ni te ci gouvernement Amadou Ba la mooy ci nguur goo xam ni. Eh, ci la ñu gisee ay nervi yor ay fetal nekk ci ay pick-up yoo xam ni ay force de l'ordre ñi ngi jaxasoog ñoom foofu kon li ngay xalaat foofu mooy nervi yi kañ la ay nervi am sañ sañu nga bu fetal te force de l'ordre yi arrêté wuñ leen kañ la force de l'ordre di joxe di seetaan koo xam ni dafa yor ngànnaay di jëm ci askan wi di leen gaañe di leen tiire ji te waxu ca dara loolu ci gàngoor la amee mooy nguuru Macky Sall gi ñu loo xam ni kenn mësu koo gis parce que nit di nga def loo xam ni sax ak laxuur la wante da koy nëbb waaye dem ba nga xam ni booy def ak laxuur ak def ak mbaax nga yemale da nga koy fësal fàng euh, di doxi doxinu ma tey damay def lu ma neex waaye kenn du ma mënal dara damay def lu ma neex mais kenn du ma mënal dara loolu ci nguur Macky Sall gi lañ ko gisee mooy lii nii jël ay kaat-kaat yu bëree bëree bëri yëpp ci ay ñoo xam ni ngan ngànnaay nga leen jox yoo xam nga may ngànnaay sophistiqué yoo xam ne ay automatique la ñu doon ñuy tiire ci sa kaw askan ndax lan ndax loo xam si bëgg nga ko saw askan baare la route bi ni la doo jàll doo dem nga leen di jëf jëf ju bon ju ñaaw ji loolu ci ban régime la amee muy régime mu Macky Sall kan moo ko jiite woon euh, Amadou Ba kon xamal bu baax a baax ni xeex euh, bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk ba jël ko teg ko ci ay loxo yu normal mais bañ sa réew mi ngi tàmbalee ci teg ko ci loxo yu bon yoo xam si euh, dañuy recruter ay nit ñuy fetal seen askan dañuy recruter ay nit ñuy rey seen askan. dañuy recruter ay nit ñuy gaañ seen askan. E, kon bëgg sa réew ci jàmm yàlla boo ko mais xeex Amadou Ba mi nga xam ne moo jiite woon gouvernement boobu farata la gis nga viol bés bu ngeen jaawalee wala kenn ku bokk ci wala kenn ku la déggal bés bu jaawalee ba jën aw kartam dénk ko régime bu bon bi nga xam ne si lépp luy xeetu mbon mbon luy xeetu ñaw ñaaw lu xel mënta xalaat ci lu ñaw ci lu bon teg nañ ko ci suñu kaw su ngeen xalaatee jaawalee gumba gumbalu tëx tëxalu dégg ñi nga xam ni seen intérêt bopp dong moo leen tax di wax ñi nga xam ni weñ lañ fu ñu fu tooy ñu dal ñi nga xam ni fépp fu seen poche di e, di diise lépp loo leen wax loo ñu wax ko ñi nga xam ni amuñu ngor jaay nañ seen ngor bu yàgg ñi nga xam ni seen honneur amu dafa seen honneur dafa am njëg boo leen joxee xaalis ñu jaay seen honneur jaay seen bëgg-bëgg jaay seen vision jaay seen e, conviction ñooñu bu ngeen leen toppee ci seen diabolisation bi diw baaxul diw baax diw baax ndax diw moo am expérience nangam nangam bu ngeen ko defee day dóor ngeen seen loxo ci ëkk te bés boo dóoree seen loxo ci ëkk méttit wa ñoom dañuy wëlbatiku di la ci méttit woowu te dóor gi nga dóor seen loxo ci ëkk ñoom seen njariñ lay doon parce que day day diisal seen poche di tooyal seen ceeb di leen may ay voiture di baaxal seen affaire daal di naatal seen jamono yow nag sa jamono gën di lax ngay gën di misère da ngay dee da ngay ba dee te doo gis kenn koo xam ne dina la dimbali ci coono bi nga xam ne moom nga nekk lenn rek mooy solution bi mooy xam ni ay saay-saay ñooy laaj réew mi te ab saay-saay te ab saay-saay kenn du ko jox réew nit bu taxawee sa kanam xalaatal li mu def ci ginnaaw nga xam ni nit du soppeeku mukk nit su fekkee deru bukki la soloon di la attaqué dellu di la attaqué di la attaqué dem ba sol deru bëy di la ñoo da ngay xam ni kii dafa am lu muy këppatal lu muy yoot waaye bés bu ko jotee sànni deru bëy wa sangowaat deru bukki wa kon bu leen jaawale bu leen jaxase Modou Ba baaxul guddi baaxul bëccëg baaxul suba baaxul ngoon baaxul naaj baaxul niis baaxul taw baaxul sawet baaxul xool baaxul xippi koom ak yoon yi demee noonu non non loolu taxuma naan baaxul ci baax yi nu mën a yor Sénégal candidat bu baax ci loolu laay waxee ay qualification ay ay euh, euh, compétence am ay euh, maanaam daal dajale loo xam ne si mën na ko kepp pour yor Sénégal xam-xam bi mu kepp atanul Sénégal foofu laay wax moo tax ma ni baaxul kanam baaxul ginnaaw baaxul ndeyjoor baaxul càmmoñ baaxul kaw baaxul suuf. Hmm. amul benn angle boo xam ne si mën nga ko faa peser mu baax fa parce que fi mu jóge la tey nit bu la nàmpatalee ay jikkoom kese ngay mën a jël butéel li mu xeeñ moom maanaam ab saañ li mu xeeñ moom la butéel ba defoon ab butéel lépp lu mu defoon boo tijjee saañ ba boo xeeñtoo xet googu la lay jox Amadou Sall moo saañoon gouvernement bi gouvernement bi la mu defoon boo ubbee Amadou Ba loolu la lay xeeñ donc Amadou Ba mënul tricher mënul def lu dul li Macky Sall defoon kon gëmal ni boo yëkkatee réew mi teg ko ci loxol Amadou Ba naqar bi ñu Macky Sall tegoon jëf ji ñu Macky sàll jëfoon euh, tëj gi Macky Sall doon tëj suñu ay doom ñii patt nañ ñii làgge nañ ñii ñàkk nañ seen liggéey ñii dàq nañ leen ñii duma nañ leen ñii génne nañ leen ñii sànq nañ leen ñii réer nañ li fi xew ci ay njomme ni mu bëree boo yëkkatiwaatee régime bi tegaat ko ci loxol Amadou Ba muy Euh, état continuité jàppal ni toroxal nga sa bopp te nit warul xool boppam di ko toroxal. Euh, te nit yaakaar naa lu mu gàtt gàtt xel du toroxal boppam te toroxal sa bopp mooy yëkkatiwaat euh, réew mi tegaat ko ci loxo yi régime bi nga xam si ñoo nekk en place. te gis nga loolu xam nga lan lay wund mooy gis nga sondeel ni mu ni mu demee ak nit mooy sondeel day tàkk di la niital ngay def say bëgg-bëgg say soxla sépp def ko sa waa kër ñëpp def li ñu war a def kenn ku nekk euh, di terlu ci leeraange su leeraayu sondeel bi waaye sondeel bi ma nga leen di leeral ba pare mi ngi lor boppam mi ngi jeexal boppam di éliminer boppam day dem ba mu jàgg dootul des dara léegi kooka day wutaat beneen sondeel rek taajaat ko sondeel boobu lakkaat boppam ba jeex ñiy jàppale régime bi noonu la ñu demee dañuy lakk seen bopp dañuy dañuy lor seen bopp di jariñ eh, di jariñ régime bi di lor seen bopp di leen jariñ lor seen bopp di leen jariñ ba à done moment donné dootuñu mën a reculer te dootu ñu maanaam dañuy ñàkk dis ñàkk les teg fa ñu jëm dootuñu fa ñu jógee dootuñu fa mën a dellu ndax gàccee goñ fa bàyyi te rus nañ faa delluwaat te fi ñu jëm dañu fa fekk lu baax ñu nekk ci diggante bi nag tagga témbe kon xalaat leen bu baax a baax a baax yéen ndaw yi Sénégal régime bi li mu teg ci seen kaw ni mu diise euh, yan bu diis bi mu leen yan ci ak ci lan ci jaay dooleek nappaateeg injustice su ngeen jëlaatee loolu dénkaat ko ñoom ñu war a continuer loolu fan lañu jëm ci ab coono fan la ñu jëm ci toroxtaange fan la ñu jëm ci ñàkk jàmm fan la ñu jëm ci alkande alak sa bopp magul jëlaat régime bi joxaat ko euh, jëlaat Sénégal joxaat ko régime bi nii kon jëleen leen seen responsabilité dès maintenant ngeen euh, sensibiliser wu engagé wu sensibiliser képp koo xam ni seen xarit la seen waay la seen mbokk la ngeen wax ko ni ko voteel ñii ak caay-caay mëgu ko loraange magu ko musiba magu ko euh, xeex sam réew ak ñàkk bëgg sam réew matu ko magu ko patriotisme àggul foofu noonu loolu ku amul patriotisme rek moom moo koy def Euh, bëgg sa réew ci jaamu yàlla la sa réew ci jaamu la bokk mais xeex régime bi ak lépp lu taq ci moom ak képp ku leen jàppale farata la bëgg sa réew ba teg ko ci loxo yoo xam ni loxo yu sell la yu set yoo xam ne si dañuy jub di jubal di jubbanti loolu farata la mais xeex sam réew mi ngi tàmbalee ci teg ko ci loxo yoo xam ni dañu dañoo taq di taqalaate dañoo taq ba pare ñoom seen bopp dañoo setul te ak dañoo taq te dañuy taxalaate dañoo taq di taqal di taqalaate foofu la bañ sam réew àgg kon man ak yow Vieux ak képp ko tasaare vidéo bi nañ maase xeex régime bi di ko xeex ba dootuñu jiite ci Sénégal lu toll ni fepp suuf képp ku ci mas a bokk ak képp ko tax ci ñoom Amadou Ba tàmbale ko ci Amadou Ba ba gis réew ci jàmm yàlla la ba ko mais xeex Amadou Ba farata la xeex Amadou Ba farata la xeex Amadou Ba farata la dañ ko xeex ba dootu jiite ci Sénégal toll ni fépp suuf